ginnaaw bi ñu signé benn convention boo xam ni dafa lëkkale office national de formation professionnelle ak ministère de la jeunesse ginnaaw waxtaan bu yàgg ngir ONFP mën leen jàppale si taxawal li nga xam ni mooy maison de la jeunesse et de la citoyenneté maison de la jeunesse et de la citoyenneté nag dafa nekk gis-gis boo xam ni gis-gisu son excellence monsieur le président Macky Sall ministre de la jeunesse itam nekk di liggéey pour que loolu boobu gis-gis ñu mën ko confirmer maanaam ñu mun ko taxawal kër yooyu nag buñ ko taxawalee ba pare dafay jar ñu am ñoo xam ni dañ leen di former pour ñu mën fa liggéey waaye itam ndaw ñi di fa dam di fa uti xam-xam métier yooyu nag nga xam ne dañ leen see war a former wala ñi fa war a liggéeyee mën a am ay compétence ci métier yooyu moo tax ñu daje fii tey pour ñu mën a dëggal métier yooyu ndax ay métier la yoo xam ni naam am na waaye ñi nga xam ni ñëw siy liggéey taxawaay bi nga xam ni war nañ koo am si ñoom si fi ñuy liggéeyee dafa xaw a des waaye des boobu tam li ko waral mooy tiitre de qualification bi nga xam ni moom moo war a firndeel ni ñoom am nañu xam-xam am nañ xarañte boobu titre de qualification amagutoon loolu nag moo tax ci initiative bu ministère de la jeunesse ONFP daal di tëgg boobu tiitre de référentiel comme niñ koy waxee ñu indi ko fii tey ci teewaayu ñi nga xam ni ñooy professionnels yi ñi nga xam ni ñoo yore wàllum sport ñoo yore wàllum ndaw ñi le ministère du travail pour que ñu mun a valider référentiel yooyu nga xam ni dina permettre ñi nga xam ni formé nañ leen tàggat nañ leen bu ñu amee boobu diplôme fépp foo xam ne dañ fay liggéey ñu mën leen a traité ni ñu leen war a traité maanaam ñu bokk ci catégorie professionnel lépp loo xam ni seen àq ak yelleef la ñu war ko mun a am. métier yooyu nag ñaar lañ ci tëggagum benn bi mooy lu ñuy wax animateur socio éducatif. beneen bi mooy ñi nga xam ni ñooy animateur rajo yi ndax ndaw ñu bari dañuy yëngatu si ñaari métier yooyu waaye xëy na diplôme walla lijaase bi ñu war a am amuñu ko mais xëy na jàng nañ métier bi ba mën nañ ko léegi nag pour ñu wàññi li nga xam ni mooy li ñuy wax précarité emploi maanaam nit ñi mën a am xëy boo xam ni xëy bu wóor lay nekk xëy boo xam ni xëy bu sax lay nekk te itam ñu mun see dund li si ci bëgg a dundee. comme niñ ko waxee léegi itam maison de la jeunesse yooyu ak de la citoyenneté dañ ko war a taxawal ci Sénégal yëpp waaye ministère bi jot naa tànn juróom-ñetti département yoo xam ni fa lañ ko war a commencer samp buñ ko fay samp nag il faut ñu fay dem liggéey ñu tàggat leen ba ñu am seen lijaasa bu ko defee ñu mën a dem liggéey loolu moo nekkoon sababu convention bi nga xam ni. ONFP signé na ko ak ministère de la jeunesse pour que lépp lu jëm si wàllum qualification lépp lu jëm si wàllum formation ñu mën ko taxawee former ndaw ñi ba nga xam ni bu ñu waree dem liggéey si biir kër yooyu dinañ fa dem liggéey. jàppale ONFP liggéey ci validation euh, benn liggéey boo xam defoon nañ ko pour mën a am ay animateurs socio-éducatifs yoo xam ni. Euh, maison de la jeunesse et de la citoyenneté yi chef de l'État wax ministère de la jeunesse nañ ko mettre en place maison de la jeunesse citoyenneté yooyu dinañu am ay animateurs yoo xam ni dinañ fa def animation bu mucc ayib ba projet chef de l'État boobu am réussite nga xam ne bii moom la ñuy xaar donc loolu moom moo ñu fi moo ñu fi dajale tey maintenant euh, animateurs yooyu nag ci CEDEPS yi euh, ci localité yi nga xam ne nii foofu la ñu war a implanter maison de la jeunesse et de la citoyenneté foofu lañ leen di foofu lañ leen di recruter. Euh, foofu lañ leen di former foofu aussi la ñuy liggéey bu ñu fa amul liggéey mën nañ dem uti feneen parce que animateur socio-éducatif euh, mën na liggéey ci fànn yu bëri mën na liggéey ci fànn yu bëri mën na liggéey ci association ci ay ONG ci ay école ci ay centre de jeunesse xam nga centre de jeunesse façon yi dañoo bëri mais bu ci nekk rek euh, animateur socio-éducatif mën na fa liggéey que lépp mi ngi aju ci animateurs yi nga xam ñoo koy dundal gis nañu tabax nañu fa espace jeunes yu rafet yu mucc ayib ak équipement yu dul jeex mais am gis nañu ni mu ni mu ni mu mujjee bu ñu amee animateurs yu baax yu taxaw yu dëgër mun nañu euh, espérer ni seen liggéey dina tax ba euh, ñu mën a dundal maison de la jeunesse et de la citoyenneté yooyu